nga yaatal ko loolu sa initiative bopp na boo xam ne yaa ko defal sa bopp ak bëgg a yaatal loolu su ma la ci santul wax dëgg yàlla du ma gor te nag plateau ndikki li euh, mu néew mu gàtt apporté na lu baree baree baree bari ci sama nekk ci rajo bi apporté na lu baree bari ci sama nekk ci média loolu maa ngi la ciy sant mooy number one ndekki li ndekki li man moom lay déglu Sud FM Sénégal man la Beydi bi de bu bees yaa ngi ci émission ndekki li ak maam Nicolas jërëjëf

ci euh, sunu ay plateformes digitales YouTube Facebook notamment ñi ngi amati mbekk di leen nuyu di leen bégeeg di leen ziar bu wér yéen ñi ñuy seetaan fépp ci àdduna bi di gis ne oustaz Maodo fay jamono yi may wax en direct mu ngi toxoñ bët yi ngeen koy gis live and direct n'est-ce pas oustaz Maodo Faye bismillah waaw wax nga dëgg xam nga dëgg moom li nekk ñaar genn doo nga la te wax dëgg yàlla li mu wax dëgg la. maa ngi lay dañu lay seetaan di wax wax doo leen wax Maodo ñu ngi koy seetaan. gis nga de yaa ngi télé. waaw te boo demee télé du waaw yaa ngi déses. bu fekkee ne Nicolas da lay toppat toppat toppat bu bu continuer. boo boo ràññoo ci mbir bi kay du garaaw. mais déses kay a tudd. waaw maa mais garaaw ba nga gisul li nga xam ne indi cadeau Noël bi la ñu wax kii papa El Hadj Ndiaye. ah c'est Noël. faut amener les de Noël là voilà. dina ko dégg. mu sax mi ngi lay dégg. Ah, mu ngi déglu bu baax mook Marème Ndiaye. ak Abdou Ndiaye. ñu ngi leen di nuyu seen bureau yooyu. waaw indi leen kii cadeau Noël la ñu wax. d'accord euh, Nicolas nee na Nicolas faut arrêter de faire genre Abdou Ndiaye voilà. Abdou c'est ton ami. Ah, waaw Abdou waaw Abdou sa gars la. waaw sama gars moom je peux me permettre. <laughs> voilà très bien xam nga xam nga wax jàng <laughs> di nuyu sa bool. ñëpp di la sant bu baax baax di la gërëm. jëf yaa oustaz Maodo Faye di la ziar di sant ci bu baax a baax euh, euh, Mbacké. waaw bismillah. ah ñu ngi baax. Hmm. <laughs> kan nga nekk sëriñ. yàlla baax na. ah ah émission bi <laughs> ñoo ngi leen nuyu Aji Nicolas. yàlla baax na <laughs> xam nga sama gars yi fële moom xaaji la ñu wooyee ñëpp. ndeysaan ñu ne ko kii San la tudd. Hmm. ñu xaaji San na nga def. xaaji San xaaji maa ngi lay nuyu baax di la fay nuyu. naa at su kii ba sama conférence bi ñu ma pare newoon. waaw kii di woote ci microbi bi micro central El Hadj Nicolas. waaw ma ne ah xam nga loolu dafa neex. El Hadj Nicolas. Alaaji Nico. oui mais Nico loolu nuyu parrain bi Alaaji Nicolas ñu ne wéy. loolu loolu nag war naa mën a nekk. loolu dafa neex. <laughs> waaw <laughs> ñu ngi lay fay nuyu bu baax di nuyu. nuyu waa Jële. Ah, waaw waaw Franc sori ma la de. waa Jële jël xobu maa ngi koy nuyu. non boo nee Jële day mel na sori. dañoo dañoo toog di la gis. non non dañoo dend mais dañoo sore. Hmm. <coughs> waaw mën nañoo soree nag. li ñu li li ñu wuute bari na maa yow. si près mais si loin. si loin effectivement. waaw wax na dëgg de. waaw si près mais si loin. mais des fois si loin mais en même temps si près. quand man kay je ne veux pas être <laughs> mais am na man ñoo xam ne si loin noonu lañ koy mais ñoom mais ñoom si près en même temps. ah ci yow. ah près wala pare. lu ma ci xam man kay fi na yow lay déglu man fi na yow xam nga yow moom say làkk moom loolu la neex ngay wax man dama laa fan yàlla baax na. loin loin. <laughs> yàlla baax na mais ziar naa leen di leen souhaiter joyeux Noël. naay cool fan saa ñu ngi la koy euh, souhaiter bu baax. man après laa door a xam ne. joyeux Noël Noël heure bii lañ ko war a wax. xam nga voilà at mépp day wax joyeux Noël. man ay at a ngi nii joyeux Noël. at yëpp dama ko doon dégg après nag ma gis fan yi nit ñi di ko bindante ma ne luy loolu ñu ne ma ci jamono ji ci ci ci ni ko daa daan toog fii naan la bon weekend ngaa la <laughs> lundi ah. lundi lay taxaw naan la bon weekend lu a neexal ah, day bëgg nga waajal day bëgg nga waajal wallaay du ñëwagul le futur le futur ay quelques quatre jours après quand même ah <laughs> mais am nañ mbégte bu baax a baax a ah, baax euh, dernier ndekki li euh, lan noo def nii xam naa dañuy tënk rek la noonu nar a waxtaane bu ko defee ñu daal di tàggoo yi xam naa ne keroog ba ba annoncé loolu am na ñu bëri ñu doon bind grève grève grève ci kii bi plateforme bi lu tax ndekki li eh, di di jeex donc loolu euh, euh, naa demee noonu.

à la présidentielle euh, et atteinte à la sûreté de mmh. contre la montre pour son éligibilité, à la présidentielle du 25 février 2024. Alors que la Direction générale des élections, donc DGE, ainsi que la Caisse de dépôt et consignation CDC ferment leurs portes à de justice qui lui sont favorables. Le président du parti par décret le 31 juillet dernier, une première depuis 1961 garde une lueur d'espoir avec la Sénat. Toutefois, l'affaire Prodac, dont l'audience ordinaire est convoquée le 4 janvier 2024 par la première chambre pénale de la Cour suprême, risque d'annihiler toutes ses chances de devenir cinquième président de la République du Sénégal maanaam dafa mel ni Sonko bu ñu jugee ci lii rek dal ci lee jugee ci lee dal ci dal ci lee moo tax euh, Sud titré Sonko sur les fronts waaw xam nga Sonko sur euh, tous les fronts loolu dafa nekk loo xam ne lii li wolof naan lu ne fàng kenn du ko jeex nekkatul loo xam ni maanaam dangay ngay toog fii ci rajo bi naan Sonko lii lañ koy def nañ parce que affaire yi dafa maanaam dafa leer leer na nañi léegi nag euh, am na dellu ginnaaw gu ñu war a dellu ginnaaw tuuti ci woy wàllu justice ci boppam ñoom li ñu war a def man jàpp naa ne def nañ ko ndax daal ñaari nit ñoo xam ne ñoo bokk benn liggéey ñoo defandoo ay ñoo bokkoon université jàng fa wàllu droit kenn ka nekk ci diwaanu ci gicoor càmbar kayit yi ba xool ko daan ne kii li loi réew mi wax mooy delloo leen ko ci liste électorale yi muy juste saba si fay ñu demaat ab diir bërëb yi tàmbaliwaat ñu dem kaw dikk suuf day tëgg tëgg làmb ji dem dem dem ba mu yàgg ñu demaat ci bërëb attekaay yi ne jàpp ne moo gën a kawe hmm. ñooñu càmbaraat ñee taxaw ku nekk ak say avocat hmm. ñu laya lay ba mu yàgg ñu ne ah neexul ba neexul de waaye kii daal li justice bi wax mooy nañ ko delloowaat ci kiim hmm. waaw léegi am réew moo xam ne ba dogalee wala ñu yàlla dénk réew ma ne loolu du fi amee bu keroogee léegi lan mooy palaasu justice ca réew moomee loolu ab laaj la boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ko war a bokk xoolaat ko muy benn ñaareel ba it jàpp naa ne euh, la ma waxoon ne ala kulli alin xaw ma lu Sonko def waaye singali nañ ko singali googu nag mooy li euh, Alioune Tine wax ci suba ne administration bi dañoo war di communiqué waaye ñëw rek ñu ne la doo dugg ci bunt bi fab ay alkaati xëpp la ko te duñu la jox yow benn justificatif boo xam ni moo tax en tout cas doo fi dugg doo fi dugg doo fi dugg doo fi dugg te réew mi ñun ñëpp ñu bokk ko loolu moo tax nag kon nit ñi seen xel di ñaaw maanaam nit ñi li ñaawal seen xel du nit ñi ñoo ñàkk a ñoo fab seen xel ñaawal ko ci administration bi wala ci justice bi de déedéet dafa am ay acte li tubaab li li ñuy wax ci journalisme les faits fee yi ci boppam mooy mooy mooy mooy firi boppam. fee mooy firi boppam. ba nga xam yow boo waxee lu wuuteeg loola da ngay daal di soof ndax dafa nekk loo xam ne kii wax na ca diwaanu Casamance na looloo am loolu teg si wax ñu ñëw Ndakaaru bëriwaat làmb ju ñu kii keneen ku jàngaat même texte yooyu même dalaa il yooyu le ne lii dëgg dëgg dëgg dañ ko cee war a dellowaat Sénat ban fi génne ba nga xam ne leen effacé ba nekkatuñ fi sax ñoom sax ban xoolaatee mbir mi premier Sénat bi fi newoon dañ woon yëf yi ko a delloowaat waa léegi lu tax delloowaatuñu ko ci. léegi yéen est-ce que journalistes yi jàng ngeen ba xam lu tax mënuñu ko see delloo bu dee euh, euh, yoon dafa am dogal lu tax mën ñoo fexe ba euh, wéyal kii dafa ndax dafa am lenn lu lonku ci lonku ci loolu ba nga xam ne lii yoon dogal alors qu'on dit force reste texte à la loi. loi yoon dogal kii mun mënuñu fexe ba appliquer ko. qu'est-ce qu'il y a derrière. mais yéen jàng ngeen ko. oui absolument man ah, man de personnellement man jàng naa ko. lan la c'est une question politique. c'est purement politique. non loolu dafa na. Ah, ah, baax na bëgg na ma ne yéen journaliste yi. loolu moom la sa commentaire la maanaam bi nga defee ba noppi. man dama ne journaliste yi ndax xam man bi ma liiree ba pare bi ma liiree ba pare lépp lépp lépp dama wax ne. doxaluñu justice politique la ñuy doxal. ak doole man loolaa wax sama laaj dafa leer rek yaa oustaz dama ne. Euh, dem nañ euh, DGE. Mm-hmm. Euh, ñu renvoyé leen fan lañ leen renvoyé daaf déedéet laata sax. démb daata bés yi avant. waaw ñuy demaat justice. Mm-hmm. dama ne dem nañ DGE DGE lànkal leen. Mm-hmm. ñu dem justice. Hmm. def naa cour suprême la woon. waaw cour suprême lañ demoon cour suprême. renvoyé leen. Euh, tribunal tribunal de Dakar. boobu fekk na hmm. damay kiiwaat moo tax ma laaj la yow journaliste bi boobu fekk na tribunal Ziguinchor am dogal bu mu génnee. Hmm. Euh, ñu ñëw tribunal de Dakar tribunal de Dakar dëggal lii tribunal bu Ziguinchor euh, waxoon. ñu delluwaat DGE. DGE ba léegi lànk ne du jox ay fiche Ousmane Sonko. bu fekkee ne eh, eh, DGE nekkul ci yoon kon DGE dañ ko war a sanctionner ci mhm, yoon mhm. bu fekkee nag sanctionner ñu ko mooy DGE dafa nekk ci yoon quelque part mhm. pourquoi DGE nekk ci yoon moo tax ma ne journaliste yi itam informe leen ñu parce que bu dee DGE fi mu campé dafa fa campé mooy peut-être am na dëgg fan la ko fan la ko war fan la wér euh, non non cest à bu dee loolu la kon duñu avancé parce que gis nañ fi ay dëgg yoo xam ne ngi ci yoon juste ko ñu ne lekk na kii nangam ak nangam kii xam nañ mi ngi ci dëgg te dossier yaa ngi nelaw ba léegi réew mi mooy doxee noonu loolu tàmbalewul ci kii de am na fi ñoo xam ne ñi maanaam tey barki démb boo njaay ci lii nga xam ne moom moo di covid 19 bi ah cour des comptes dem nañ ba joxañ ay nit ne ay milliards yi milliards yi te loola ñëpp xam nañ ne du dëgg waaye ba léegi àll nee na seen ndaw xanaa kon léegi tam bu neexee kon ñu ne mbaa kon ñu lekk Mm-hmm. Mbacké waaw mm, euh, c'est-à-dire euh, li ngay wax nii te wax ne Alioune Tine waxoon na ko muy dëggal laaju Nicolas bi euh, mooy peut-être waa DC wala administration buñ doon communiquer communiquer gi mooy mooy tax ñu man a xam ñoom li ñuy def fu ñu ko teg xam nga mbir moom yaakaar naa nit du ko def rek def ko ci ak maa tey mais Mbacké dogguma la mais ñàkk a communiquer ak waa wax la de la waaw mooy la a communiquer mooy dañoo lu ñu wax déedéet mooy am na am a communiquer xam ne bu waxul du wax d'accord léegi man li ma bëgg xam mooy bu fekkee ci réewum droit waaw justement xam nga ay ku waxul du ma wax man euh, ay waxu wax fu mu nekk nii mais texte yi passé nañ ko xam nga xam nga tey bu dee ci réewum bu dee bu dee bu dee dañoo maanaam ay tribunaux tribunal bi àtte waaw joxe verdict waaw ñu ne verdict bi bu ko joxee dafa jox ndigal ngir ñu delloo diw ci liste yi ay avocat am ànd ak kam mandaté xëy suba ngàbbu seen i këyit ñu dem ñu bañ koo delloo wala ñu bañ leen a jox fiise ñooñu ko bañ a jox xanaa war nañoo mën a wax ni xam nga bu njëkk ba biñ bañee indi woon nañ ay tontu Maodo waxoon nañ ni état dafa def appel. Mm-hmm. te dossier bi vidé guñ ko. Mm-hmm. comme vidé guñ ko duñ leen jox fiise tey nag loolu mën naa am amagut wala tontoo guñ loolu ci lan lañ sukkandiku. pour gàllankoor leen bañ ne duñ leen jox fiise xam nga tey amul sukkandikuwul fenn amuñu amuñu lay amuñu lay. sàmba amuñu lay non amuñu lay bu amoon lay wax ko. Mm-hmm. léegi nag bu fekkee ne kon ñàkk lay la wala am lay yëpp yaakaar naa loolu nekku nekku doon solution bi tey jii ñu jëm daaf ñu jël force de l'ordre yi teg leen fa ñu jëm euh, fii ci DCE euh, e, ñu jël ay force de l'ordre teg leen fa am na lu gënoon forcément quelque chose voilà voilà am na lu gënoon yomb loolu bu fekkee ne tonton nga fa bu fekkee tontu buñ mën a teg ma nga fa buñ ñëwee nañ leen recevoir ñu ñëw ñu wax leen li ñu tontu ñu génn moo xam tontu bi satisfaire na leen moo xam satisfaire uñu leen waaye loolu a tegal askan wi. ci penc mi nooy tontoo ci au loo ci laa bëgg a wax xam nga tey bu fekkente ne loolu amut ñi xam ne kon tontu dañoo amut lu ñu tontu. léegi bu fekkee volonté politique kese la nag ak bëgg gàllankoor euh, nit ki ngir du bokk loolu itam beneen jàngat la boo xamante ni boobaa nag war nañoo war nañoo gën a tiit nag ndax loolu nit mën na koo def jaay ko citoyen yi kese bi nii waaye bu fekkee nag décision justice ci boppam mooy ñëw bëgg-bëggu nit mën a teguwaat ci kawam ba loolu ñàkk bañ a am. loolu moom. Euh, boo kon nañu jël justice sànni fële pourtant wax naa ko kon bu boobaa nañu jël justice sànni fa pourtant wax naa ko bu ko appliquer ci mimi réew. Euh, sous prétexte euh, la mais mën nañ sànni justice fële. Ah. parce que soit dañuy respecter yoon ñun ñëpp. soit ñu ñàkk respecté. xam naa pourtant de Mbacke wax naa ci sama ne kon léegi lan la fi justice di jariñ. xam nga léeg-léeg tout dire mm. même même boo bëggee même boo bëggee respecté institution yëpp ba nga xamante ne kenn ku ne da nga koy wàcc waayam institution yi dañ laa war a dimbali ci nga respecté leen mhm. c'est-à-dire boo bëggee respecté tey administration bi moo xam daaf la mhm. moo xam euh, euh, fi ñu dépôt si ñu doon jële fiise bi la mhm. mooy direction euh, bi yor wàllu élection yi DCE e ñoom ñëpp ngir ñu respecté leen ñoom ñoo ñuy dimbali ngir wax ñu li ñuy def fan lañ taxaw moo xam dëgër na moo xam dëgërut nattukaayu yoon ñu mën a natt ci yoon ndax kii li muy def mën nañ koo layal wala mënee su koo layal gannaaw justice amatul ñu mën a layal justice ba xasee ba dogal aw lay amatu fa application ma fa sës. léegi nag bu tuddee bu dee jaay doole aussi eh, xam nga xam nga jaay doole moom leneen la eh, maanaam waa du bokk parce que ñun dañoo bëggul mu bokk ñu xam ne waa du bokk parce que dañoo bëggul mu bokk léegi loolu beneen gisin la boo xamante ne bu boobaa xam naa xuma xuma désordre lañ koy tuddee xuma lan lañ koy tuddeeti waaye day mujj yàgg bàyyi leen yoon mu def ah, liggéey c'est du n'importe bu boobaa bu fekkee ne <laughs> ni ko oustaz Maodo Faye waxee noonu la demee nekk nii lépp waroon taxaw mm-hmm. ah, politiciens yeeg réew mi ñëpp waroon taxaw ne par force yoon mm-hmm. c'est lépp mm-hmm. la fi nekkal dañ koy respecter par force d'abord après ñu doxal mais bu fekkee ne bu fekkee moo tax ma laaj est ah. dafa am leneen lu nekk ci ginnaawam déet parce que man mënuma <laughs> taxaw ne maa bañ. décision de ah. justice maa lànk du ma ko. moo tax ma ne ko léegi justice lu muy jëriñati. waaw su fekkee nag foofu maag yow googu xale yi daan wax la nga xamante ne dañuy dañuy petit camp wala ñu def dara am ku mën a ku mën koo xam ne bu ñëwee dañuy gañee ñu ragal ko mu ñëw ñu ne ko booy bokkoo hmm. nga xam ne bokkoo la bokkoo gi amul benn benn argument fenn fu ñu ko teg waaye dañoo bokkut da ngaa bokkut hmm. ndax boo bokkee da nga ñuy gañee te boo ñu gañee rafetuñ njort ci fa nga ñu war a jëme ëllëg moo tax bokkoo hmm. loolu nag bu boobaa nekkatuñ ci ab république nekkatuñ ci euh, réew moo xamante ne nii réewum réew mu sukkandiku ci ay loi ak ay texte léegi nag li ñu ciy sant yàlla mooy au moins justice moom épargné nañ ko ci euh, maanaam ci njaxas mi parce que li gënoon a doy waar Nicolas mooy ñu ne dañoo dem ci justice ba justice ba def loo xamante ne tegu ko fenn te jàpp ne administration moo ko def loo wala ay ñi ko féete kaw moo ko def loo mais au moins ñu ëpp ci sénégalais yi jàpp nañ ni justice moom bii pas mhm. taxaw na ci ni mu war a taxawee taxaw ci wàllu àtte wéy di continuer di def justice mu des nag politique ndax ñun doole ji ñu ko jox Euh, maanaam pouvoir yi ñu dajale jox ko ñi ñu jiital mm. ba nga xamante ne nii décision justice mën naa ñëw ñàkk laa arrangé mm. nga tekki sa tànk te décision justice tax nit tëdd kaso ñaar fukki at mm. décision justice tax nit tëdd kaso fukki at tax ñu nangu alalu nit réew moomu bu ñu bëggee sàggane décision justice parce que arrangé tu la day mel ne kon déglooti justice ci réew moomu amatu Mbakare bu fekkente ni ke nekk DG man maa ko fa teg kee nga xam ne moo nekk ci Sénat ba maa ko fa la fa teg waaw defal lànk dafa lànk damay xaar ba ma àggal rek. non comprendre naa li nga bëgg damay dama bëgg wax léegi. Hmm. bu ma bu ma bu ma la tegee ci béréb dama naan la lii moo ma neex lii fi am boo ko fa deful ma jëlee la fa. waaw loolu gis nañ ko ci réew mi. dëgg la waaw léegi xëy na tamit ñi ñi nàkk bañ a nangu kii bi xëy na dañoo bàyyi xel ka leen fa teg peut-être. Ah, man dafa mel ni déggu leen ma. ba tey dama ne man. ba ma juddoo ba léegi maa ngi dégg force reste loi force reste à loi boobu man saa su ne décision justice ak lu mu mënta doon mu arrangé la ak mu ñàkk la arrangé damay jàpp ne justice moo décidé. voilà yaa xayti justice bu décidé lan moo tax mënuñu ko appliquer moo tax ma ne ndax dafa am du nekk ci ginnaaw loole parce que normalement en temps normal ci réew bu normal ñii décidé ne lii justice euh, kii décidé duñ ko appliquer dañ leen di sanctionné de facto. maanaam bu fekkee ne sanction yooyu amul ba pare ñu leen di bàyyi ci li ñu nekk ci lu ñu neexee munoo leen wax sénégalais yi nañu respecté justice bu boobaa kon nañ sànni justice c'est aussi simple que ça. non non non il faut dire les parce que ku waxul lii wax la ci des ah. en tout cas justice mi ñu sàggane daal bu ñu ba élection am ba ñu watee ba ca ngoon it justice la ñuy déglu jiwaat ñu war ñoo jox ay ay résultats ñu war ñoo jox nangam ñu war ñoo jox nangam léegi nag bu fekkente ne lii sëñ la di wax nit mën naa toog ci barab parce que diwoo ma fi teg xam nga boo toppee moo ma fi teg moo ma fi teg daa am sañ-sañu teg la fi waaye sañ-sañ yooyee moo joxe woon ba ca ak ngoon ñu joxe ay résultats mu nekk président de la république doole yëpp xëy dajee ci loxoom euh, réew loolu si si ko indi woon si si boobu nañ ko protéger mu nekkal fi ñëpp. Mm-hmm. jërëjëf Mbacke jërëjëf euh, Maodo euh, ñu fàttali mbokk yi yéen a ngi ci Ndekili ñu ngi en direct sunu ay plateformes digital et réseaux synchronisés Sud FM Ndekili première émission du Sud il reste le pouvoir en cassation me dit-on ci plateforme bi YouTube c'est quoi le pouvoir en cassation oustaz Maodo Faye. en fait mooy bi nga xam ne am na sañ-sañu àtte ñoom mu kase ko. dañuy defaat appel foofu. waaw waaw mu kase mu kase ko maanaam tey man nañoo mën naa seq ak Mbàkke dara moo yay ma bon en premier lieu mu gagné ma dem ci gañaayam googu ma yóbbu ko cassation euh, cour boobu nag amul door ci door door ci bant mu toj mm-hmm. yàqu. loolu mooy cour de cassation. Mm, d'accord ñu seeti meneen bedd. léegi lu lu ko ci moom kii euh, euh, euh, Sonko. non Sonko xam nga journaliste bi lay laaj. sax waaw non je suis d'accord avec gis nga gis nga en réalité gis nga wax ji nañ ko bañ a wër loo man wax naa ko fi waxatu ko fi. gis nga dañuy juddal ge moo xam Pastef oo justice oo Sonko oo Sonko du bokk ci élection yi. mais Maodo yow li loolu foo ko de fi ma ko tekkee. xam nga dañ lay laaj loi déedéet. fi ma ko teg non maa ngi ñëw mais xam nga tamit bàyyi wu ma àggale tamit. non bu kenn nga wax ko te doo àgg kon. xanaa yaa may doog boo ma dugg rek toujours damay faral di wax ne yéen wax ngeen ko léegi mu leer nañ réew moo xam ne mii da ngay dem ba justice ba bu dogalee kenn du ko respecté cela veut dire que am na beneen bëgg-bëgg bu nekk ca kaw justice ba nañ waxante dëgg loolu nag euh, wolof dafay wax ne xaayaan ko dégg séeréer al ishaaratu takk fii lil aqil maanaam bu ma la bu ma la joxañee sama bi boo dee borom xel bëggoo mu naan butéel bi ndox a ngi ci naan la ko da dem ba xam li ma bëgg a wax li ma bëgg a wax moom mooy am réew justice ba nee na lee fi am ñoom du am li li tax justice bi dogal ba nopp ñu lànkal Sonko ne duñ ko dugal ci liste yi loolee wane ne Sonko du bokk ci élection yi mais li war a tax a bokk moom téewu koo bokk ah voilà loolu kay kon loolu kay kon waxatu ko. waaw léegi wax. non xam nga liy boo ki liy bokk moom ku mu téewut a a bokk. waaw waaw léegi man man foofu rek laay xaar. waaw waaw mais non xam waxu wax ci xam-xam. li wax liy war a tax a bokk. loolu la war a wax ne diw du bokk ndax ndax ndax ndax ndax ci wàllu yoon. mais gis euh, loolu journal bi liir na ko léegi. diw du bokk te liy tax a bokk ci wàllu yoon. may na ko mu bokk ne ay moroomam. Mhm. bu ñu waxaatee ne du bokk day soxla ñu firil sénégalais yooyu. ñàkk non non non non ñu firi ko non xam nga ñu firi ko bi moom mooy sept daan yi ñu teg ci boppam ba teg ko fee deux ans ne du génn feeg ñaari at. loolu tamit c'est un élément essentiel boo xam ne voilà oustaz loolu sànq ba léegi loolu laa lay laaj moo tax ma ne la qu'est-ce qui se cache derrière tout ça est-ce que par exemple yaa ngi tudd daan yi ñu ko daan merci il est important aussi de rappeler mhm. nit yi daan yooyu yan xeetu daan la mais moom la comprendre un peu processus bu njëkk bi moom mooy xam nga euh, juróom-ñaar wala juróom-ñetti euh, yat yoo xam ne teg nañ ko ci ndodd Ousmane Sonko bokk na ci woo nit ñi pour ñu fippu insurrection mooy nga woo askan wi ne leen dem leen mhm. ba noppi tamit jiiñ nañ ko itamit naan naan acte de terrorisme te boobu moo gën a garaaw. ak beneen bi ci tegoo tam mooy fexe tamit ba sécurité état bi. nga perturber état bi moo tax sax da nga kilifa gi nekk ci kaw réew mi dafa naan faral di wax naan du ma bàyyi kenn muy yàq Sénégal wala mu koy jaxase. loolu loolu président de la république Macky Sall wax na ko ba tey muy beneen accusation boo xam ne bi def nañ ko ko. trouble à l'ordre public dóor nañ ko ci ndoddam dem ba ci loolu ñu àtte ko ba tëj ko ñaari àtte bi ñu koy àtte booba problème mu mbay ñaa bi mi ngi koy xaar mooy mooy le 4 janvier bii di ñëw mm. léegi nag élément juridique yi nga xam ne mi ngi taxaw mm. dafay empêcher Sonko en fonction du temps mm-hmm. bi nga xam ne c'est très restreint fi mu toll nii dans quelques cinq jours mm. mooy tax Sonko ku ne day bokk ci élection yi xamoo li xew c'est ça la réalité mm-hmm. léegi nag xam nga loolu c'est justice la mais malgré tout même bu dee lee daa waroon a am dañ ko waroon a réintégrer ci liste yi ba pare ah. xam nga topp nag lee donc donte donte am na ay décision de justice yu génn. waaw ba téye ko cela n'enlève en rien. le fait que justice bu waxee ne nañu réintégrer gréwaat nit ki. merci ci liste yi. oui dañ ko war a réintégrer parce que xamul tax. donte peut-être moom xam na ne. waaw mën na sax ñàkk a bokk. mais au moins. yoon topp na yoon. li teg yoon parce que jugement bi nekk ci ndoddu ndoddu ndoddu ndoddu Sonko nekkagul lu définitif. Mhm. nekkagul lu définitif. waaw ah, kon kay loolu teewu koo bokk. waaw gannaaw lépp ay accusation rek la. waaye waaye six mois amagut. waaw dara définitif. waaye waaye nag waaye moo tax man Allé genre tàq fi boo gisee ni muy doxee. ngay xam ne lii fan jëm <laughs> mooy mooy neexul. nañ waxante dëgg. maanaam politique daal kon daal doo fi bokke la dañ laa ragal doo fi bokke. loolu de Mbacke yaa ko wax. non damay laaj bu fekkee ne wàllu yoon moom li nga wax nii yëpp yoon duxul digganteem ak mu bokk. Mm. ba pare nga nga mën a taxaw ne du bokk. Mm. ba pare ni junj doy ko am xel li ngay junj lu mu. Mm. waaw non xam nga li nga wax nii man dama ko waxul xam nga yow loolu sa waxu bopp la man dama ne. lii ñëpp xam moom mooy justice nee na nañu dugalaat Sonko mu dugg looloo war a am. Mm-hmm. léegi nag réew moo xam ne mi justice bu waxee pare ñu ne ko conget teg fee di def leneen. loola ku amul xel jéem a jëli loola kenn du la ko laxal sa bopp xale bu nekk en situation de handicap ñu bëri duñ ko xam mais dafay jafe toppatoo jafe lijjanti mhm. parce que à tout moment il peut y avoir quelque chose xale bi mën na énervé à tout moment doo xam lu ko énervé xale bi mën na dóore a tout moment doo xam lu tax mu dóore et cetera et cetera mhm. c'est-à-dire il faut un suivi euh, au jour au, au jour le jour à la minute près donc looloo waral aussi ñi leen di suivre à travers le centre Restel ak yeneen centre ah parce que c'est pas que le centre Restel mais man maa taamu centre Restel pour dimbali en termes de communication parce que mënuma dara mais je me suis dit euh, ci li may peut-être mën na leen servir et je leur sers à chaque fois que je communique à travers structure bi ils me font savoir que c'est toujours un plus qu'ils ressentent jéem na ça marche. économie d'énergie jéem leen jéem na ça marche. économie d'énergie jéem naa jéem leen ça marche. nañu ubbite l'école lu diis la ci bépp waajur ba tax na crédit mutuel du Sénégal andil leen crédit spécial rentrée scolaire ngir taxawu leen. ak crédit spécial rentrée scolaire CMS dina la lebal lu tolloog sa payooru weer ci diir bu gaaw te yomb lool. crédit mutuel du Sénégal di leen taxawu saa su ne ak fu ngeen mënti nekk. li ko ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw kabay suñu gan gi yegsi na kaay kaay kaapay ma kaay kaapay ma moom sa bopp moom sa alal Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. Manamori boisson champion yëpp la EDK moo leen ko indil Manamori saveur nature et coco disponible dans tout le réseau EDK Manamori la boisson des champions Merci Maodo, merci Mbaké. Refus de la DGE et de la DAF d'exécuter la décision de réinscription de Sonko sur les listes électorales. Aïb Dafé, qui est donc le mandataire, qui demande officiellement l'intervention euh, de la Sénat. def naa démb Aïb Dafé dem na foofee ca ca Sénat euh, def naa daje na ko waa Sénat noonu la. yaa mhm. ba léegi yaa may informé. bu baax waaw dem na fa la fa jëlee. dara dara en réalité dara. Mhm. boo xoolee dara. ok dara mooy zéro rek ba léegi maanaam daal boo bëggee gàttal léegi Nicolas. Hmm. neel a ñoom ayib daafewoo. tontu laaj yëpp lañ bëgg lañ bëgg dëgg dëgg. ba fii ñuy waxee ci émission ma la au moins je vais comprendre le mandataire de Ousmane Sonko <laughs> donc euh, euh Mohamed Aïb Dafé officiellement saisi qui a officiellement saisi la commission électorale nationale Sénat dans le cadre du bras de fer qui l'oppose à l'administration centrale en charge de l'organisation des élections autour des fiches de collecte des parrainages après deux jours de déplacement infructueux auprès de la direction générale des élections DGE de la direction de l'auto l'automatisation du fichier DAF et de la Direction générale de la Caisse des dépôts et de consignation CDC. Le Aïb qui a été reçu par le président de la Sénat, Abdoulaye Silla, a révélé avoir demandé à ce dernier l'exécution de la décision rendue par le juge de Dakar. léegi gannaaw laaj na ko waa Sénat waa Sénat la nan lañ ci tontu euh, def naa les avocats de Ousmane Sonko may ma euh, oustaz euh, Sonko qui rappellent au chef de l'État Macky son engagement de faire respecter les décisions de justice moom la doon wax sànq ainsi le collectif des avocats de Ousmane Sonko a dénoncé hier mercredi le refus de la direction générale de caisse de dépôt et de consignation à recevoir l'huissier de justice mhm. accompagné de Mohamed Aïb Daffé mandataire de Ousmane Sonko dans un communiqué rendu public maître Ciré Clédor Ly mhm. ainsi que ses confrères qualifiant ce refus d'une autre atteinte de l'autorité mhm. de la justice rappelant au de la République Macky Sall son engagement lors de nation 3 juillet dernier de veiller d'ici la fin de son mandat à ce que les décisions de justice soient exécutées. Ouais. Alioune Tine qui juge inadmissible le silence du ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba. Alioune Tine qui est monté au créneau pour s'insurger euh, contre le silence du ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba, Sidiki Kaba sur le refus de la Direction générale des élections d'exécuter la décision de justice annulant la radiation de Ousmane Sonko. Aminata Touré qui elle dit ceci, si l'administration de justice, reste-t-il de la notion ah, d'état de droit au Sénégal donc li Aminata mu Touré mujjee euh, foofu euh, la ñëw sànq mhm. mooy maanaam Aminata Touré nee na bu fekkee ne administration Sénégal mënuñoo respecter euh, lii yoon dogal kon yoon lu muy defati ci mim réew merci nag waaw kay nag Nicolas nag wax nga lépp nag moo tax léegi may may wax ma ne mhm. bu ñu demee ci réew moo xam ne dañuy dem ba bu justice bi dogalee mhm. ñu ne loolu du fi amee lan mooy njariñu justice bi kon hmm. waxuma sax ne am ak bañ am de ban njariñ lañ ci amati hmm. beneen bi ci tegu Sénat bii nga xam ne bokk nañu gars yi jotaay te lañ bëggoon amuñu ko hmm. bërki démboo njaay fàtte so xaju fi Sénat bee ñu fi jëlee ba fa gars yi demee ñu fa demoon tey ban fa demee mu ñu nangu ko benn waaye moo jël xalimam ne la jóg leen fi daa sampaat ñeneen beneen bi ci tegu beneen bi ci tegu président de la république Macky Sall ci boppam moo waxoon ko léegi moom ko reli ne dinaa fas bépp ndogal boo xam ne bii jóge na ci justice. loolu waxu président la woon. mi ngi ci journaux yëpp ñoo nii di ko reprendre. man njëkkuma ko wax moo tax problème am na waaw problème am na. <laughs> kon problème bu rëy am na bu rëy rëy sax. Eh, bu rëy mais nag Nicolas tontu it am na ci problème bi de. Eh. parce que bu fekkee Sénat la seen tontu. tontu woon nañ ko. ndax gannaaw àtte bu njëkk ba bañ ko àttee hmm. ñoom Sénat ña fa nekkoon di ay góor ni ñi fa nekk hmm. dañoo sukkandiku woon ca loola joxe ndigal ne nañ delloo Ousmane Sonko ci liste yi fu mujj non dañ leen faa jëlee waaye bañ leen fay jëlee xam nga jëlee leen fa teew teewu dëgg des fa. maanaam même même même fee yi lañ yóbbuwaat ci yoon attewaat ko la yoon waxoon la yoon waxaat. ñu dellu si waat war leen faa fekkaat kon sans maanaam sans réponse mën mënuñ koo xaar ci ñoom la ñuy xaaraat ñoom mooy ñu wax la ñee waxoon boo mënta wax la ñee waxoon nag danga naan maa euh, euh, maa ne pat waxuma léegi léegi noppi bañ a wax googu day mel ne ay wax la c'est-à-dire que euh, am na daal xam nga sax léeg-léeg ñu ne réew moomu justice amu fa justice a ngi fi léegi waaye beneen problème bi ñu am kay mooy be maanaam suñu suñu diggante ak politique rapport rapport politique ak administration bi. Mhm. jëfandikoo jëfandikoo par parloo gi ñu nar a def. li ne ci ginnaaw volonté boobu day mel ne kuy provoqué askan wi. xam nga Mbacke am na loo xam boo ko waxoon tey ci rajo bi dañ naan la da ngaa def appel. Euh, kii mais état ci boppam day def appel euh, moom itam instruction. Mhm. parce que bu fekkente ne yoon dafa àtte askan wi di déglu yoon ba yoon àtte joxe dëgg. nga ne dëgg googu askan wi yéen la ko yoon jox waaye ñun jëfewuñ ko bu état doononu nit dañ ko war a jàpp tëj kon parce que moom ci boppam instruction la def <laughs> état doon <laughs> état daa doonutug nit parce que man mii tey bu état bu yoon joxe woon loolu ba noppi ma taxaw ci rajo bi ne yoon lim def kat dëgg la waaye ñun jëfewuñ ko bu euh, bu ngoonee ñu jëli ma yóbbu léegi nag li ngay tere ay sa njaboot yow yow waroo def contrôle bi parce que da ngaa yor doole mais très bien li nga wax ni Mbàkke gis nga tey même waa Sénégal wax noonu buñ ko nanguloon nangul ko de ba ne ko d'accord te waa CDE la bañ ba tey du dem. non xam nga xam nga xam nga diw bañ. diw bañ mm, bañu ma ko. mais li ma bëgg mooy diw bañ ci fan lay teg bañ. non fan lay teg amatul teg parce que. juste soxla ba pare. voilà léegi ah, léegi kon kay diwit du bañ. waaw moo tax man la kon léegi nañ xool li nekk ci gannaaw réew moo xam ne comme ni ko Aminata Touré waxee boo bu bu yoon waxee. am leneen lu ñëw tegu ca kaw yoon foofay foofu la problème bi nekk. li ñu wax yëpp jaru ko foofu rek la problème bi nekk. justice daal bu dogalee dañu war a def lam lam dogal. Mhm. ne lii mooy application bi nañ ko appliquer. Mhm. léegi appliquer wuñ ko li tali tax ñu appliquer wuñ ko ñoom eh, comme ni ko Alioune Tine waxee expliquer wuñ ko defuñu communiqué mhm. te ñee bu nangu woon. ñee na kii bu ah yéen waa Sénat yéen a nangu xaalisam léegi 30 millions yi du fi dugg nag. bu keroogee fu jëm. jërëjëf Mbacké jërëjëf Maodo alors qu'il continue de se battre pour la décision de justice ordonnant sa euh, ci euh, euh, liste yi en perspective de l'effectivité de sa candidature déclarée à la présidentielle 2024 Ousmane Sonko doit préparer un autre front judiciaire en début d'année prochaine bien entendu puisque <laughs> l'audience euh, que sur l'affaire Sonko Mame Mbaye Niang est fixée au 4 janvier 2024 loolu it di beneen problème ci problème waaw waaw waaw waaw xam nga dañoo defaatoon appel xam nga bu njëkk ba sax deux mois la woon ak deux cent millions yoo xam ne dañ ko ko dañ ko tegoon ci ndodd Ousmane Sonko comme comme euh, mm-hmm. far nag ban demaatee sax ca deuxième cumb ba euh, juste ba gën koo dëgëral daf ko juróom benn weer faf mu gën a tar. Mm-hmm. léegi nag affaire boobu nag lañ bëgg a vider le 4 janvier. xoolal tey entre le 4 janvier. ah te bala ñu le 4 janvier moom bu ñëw bu ñu dem ci àtte bi. day fekk lépp mën naa am loolu ñu xaar moo tax joxuñu leen féete nañu gannaaw léegi nag est-ce que léegi ñoom course contre la montre la wala c'est des c'est de calcul pour comme li ñu waxee empêcher aussi loolu tam fokk nu bàyyi ko xel même problème mu euh, euh, diffamation bi nga xam ne moo dox ci diggante Sonko ak Mame Mbaye Niang tamit buñ àggee ba ca njobaxtal la bu fekkente ne tribunal bi la mu waxoon moom la moom la moom la appliqué waat caaf day gën a xam rek mm-hmm. waaw man mm-hmm. moo tax man moo tax man bala maa gëm ne Sonko dana bokk ci élection yii mm-hmm. ah yàlla de mën na lu ne waaye. doy na a ngi ci ndekki li émission nandite yi ñu ngi en direct sunu ay plateformes digitales et réseaux synchronisés on est le décembre 2023 euh, oustaz Maodo nga kar ko parce que léegi il faut que ñu waxtaanee Cheikh Anta Diop laata ñoo tëj n'est-ce pas suma maam mm-hmm. euh, waaye euh, ku nekk ak li yitte kii ngi naan Nicolas sa baat bi moo neex yaa dégg tubaab. kële naan Nicolas li nga sañ si neex rafet na kon ku nekk ak li lay yitte n'est-ce pas ci Noël moo tax mu demee noonu. mu demee ni mu demee bu demee woon ni mu demee yéen xam ngeen ne du demee ni mu demee moo tax ma doxalee ko ni ma ko doxalee dëgg la voilà merci beaucoup boobee jamono boobee jamono Sénégal mu ngi def fi jéego nag ci wàllu santé euh, le Sénégal qui réussit un coup de maître dit-on euh, le Sénégal qui vient de réaliser hier Euh, son premier traitement endovasculaire d'un anévrisme cérébral. Euh, l'intervention a eu lieu à l'hôpital Cheikh Ahmadou Khadim de Touba grâce à la neurologie interventionnelle. Mhm. Informe ainsi la direction des établissements de santé au ministère de la santé et de l'action sociale. Mhm. Euh, au moins lii dina dina féexal xol yi. absolument parce que ñaari xale lañu woon yoo xam ni feebar bi ñu am xeetu deret ji way la ci bopp. te lu jafe lu jafe dindi la. Mm. parce que médecin bi ni mu ko expliqué mooy. daanaka day jóge ci suuf di jaar ci sa sidit yi mm. boo bu xale bi door a juddu deret ji day monte ba ci cerveau bi mm. sa foofu nag bu amatul fu mu dem dafay nekk nag di màgg mm. def benn benn benn benn dang ko deret boo xam ne bii hmm. fokk ñu opéré ko te bu ñu koy opéré ci suuf lañ koy jógal am raccord yu ñu lay hmm. ne opération hmm. na ci hôpital Ahmad euh, Cheikhul Khadim ca Touba réussir yoo xam ni ay juristien yu français lañ jàppale ñu ci affaire bi itam dugal nañ ci seen loxo ñoom itam def ci liggéey bu mucc ay mais de toutes les façons Sénégal réussir na ko parce que ña waroon gone yooyu yëpp ci réew mi lañ fekk baax fi la ñuy jànge félicitations aux médecins qui faisaient ça macha allah waaw suñu fajkat yi ñoom ñu ngi def jéego dëgg la de gannaaw daal gannaaw daal bu ñu defee ay njuumte ñun ñëpp ñu wax ne nangam ak nangam ak nangam dal ci seen kaw bu ñu defee ak njàmbaar it jaadu na nag ñu tàccu leen ba noppi sagu ci nag tiitaru ci mm. ñaan mu gën a yaatu mm. euh, bu ko defee loolu nam amee foofee ca hôpital ba ca Touba mm. hôpital yëpp dale noonu xel euh, ñu gën a yokk jumtukaay yi nga xam ne moo fa jëm ndax askan wi soxla nañ ko mm-hmm. askan wu néew doole lañ woo xamante ni ñuy mm-hmm. weyaale ay jàngoro bari na lool mm-hmm. leneen day am yu garaaw feebar yi yi Maodo wax deret bi way ci bopp moom loolu leneen la waaye mais ba ci ku mën a boobu nag feebar yu ndaw ndawaan yéen góorgóorlu ci nag ba ba nga am ci ndam itam ndax loolu am na solo n'est-ce pas am na solo jërëjëf Maodo jërëjëf Mbacke suñu fajkat yëpp ñu ngi leen di euh, encouragé bu baax baax a baax a baax seetkat yi chercheurs yi. Mhm. parce que seetkat Sénégal yi macha allah ñu ngi defi jéego bu baax a baax ci wàllu science ak santé recherche ak yu ni mel donc euh, laaj nañu euh, jaajëfal leen ci euh, yooyee chercheur sax bokk na ci savant bi ñu dippee Cheikh Anta. Mhm. ah Cheikh xam nga ne mhm. université Cheikh Anta ma ñu ko dippee mu ngi célébrer son centenaire. centenaire bi tàmbali tey jëm 30 décembre. thème bi ñu taamu ren mooy Cheikh Anta. ans après les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour hmm. l'Afrique. Euh, Cheikh Anta Afrique dootu ko fàtte. ah déedéet déedéet déedéet Cheikh Anta sax waxuma la Afrique dootu ko fàtte waaye ñun Sénégal gi sax ñoo ko war a yëkkati ca kaw gën ko yëkkati Cheikh Anta luñ ko tuddee wala luñ ko luñ ko jox rek tuuti na. xam nga 29 euh, décembre 29 euh, décembre 1923. Hmm. ci la Cheikh Anta gane àddina. 1923 hmm. ak léegi nag boo ko xaymaa day nekk téeméeri at. centenaire bi mooy loolu maanaam bés ba mu juddu woon 29 décembre 1923 la judd ci dëkk bu ñuy wax ceytu ceytu benn dëkk la bu nekk ci Bawol alors xam naa côté Bambey yooyu dugg ci biir euh, moom ci boppam moom Cheikh Anta Diop mu fekk nag ci même ci wàllu aada sax dafa bokk ci famille boo xam ne bii famille bu kawe lañu. waaw maanaam ñu am maanaam ñu am dignité. ñoo xam ne ñi kenn yabu leen ci réew mi noonu laa ko mën a waxee jaxasoo yi tamit njab waa famille am dañoo jaxasoo ak njabootu Cheikhul Khadim loolu beneen affaire la dinaa ci dikkaat léegi ci biir xabaar yi mu génn àddina na également le 7 février 1986. mais bu doon tane Cheikh Anta ba léegi mi ngi ci kaw suuf tey ku ko xool danga naan góor gi am na téeméeri at. loolu nag la ñuy màggal di fàttalikuwaat nag surtout li nga wax ci Afrique ndax dafa bind civilisation nègre boo xam ne bii dafa jëm ci wàllu Égypte ak la ca aju ak civilisation euh, maanaam évolution de l'homme nit fan la jaar Afrique gii nga xam ne moo di berceau de l'humanité mhm. Cheikh Anta def ci ab thèse dem ci Sorbonne université yi gën a mag jaaxal tubaab yi mhm. wax ko ba mu ko waxee nag comme tubaab yi dañoo xaw a soxor tuuti parce que nit ku ñuul moo génnee Euh, xam-xam boobu en premier lieu ñu damm ay tànkam hmm. mais nag avant tubaab bi di damm ay tànkam hmm. fii ci réew mi tamit am na ñu doon jéem a damm ay tànkam ci wàllu politique comme li ñu doon wax léegi hmm. parce que à son temps dafa amoon parti bu tudd RND RND boobu nag mook woon a juboo moo tax Cheikh Anta mook daanaka li wolof di naan xaj ak muus ci ma ci kàddu gi maanaam duñ séqub taal léegi nag parce que politique bi nga xam ne moom la Cheikh Anta Diop doon defaat wax wax nit ku ñuul ki ni mu war a mën a dellusiwaatee xam boppam xam Afrique xam ne fii nga xam ne fi la lépp cosaanoo parce que dafa am lu ma tuddee glaciation maanaam si livre bi boo ko liiree nee na Europe tolloon na benn temps boo xam ne bii glace gi dafa bari woon ko xam ne bi doomu aadama mënu fa woon a dund mm-hmm. Afrique rek la yàlla defoon ci jant bi ko tiimoon mm-hmm. les premiers ossements xe yax yi njëkk a gis ci biir suuf mm-hmm. fii rek la mën a soqee ko Cheikh Anta a développé une boo xam ne bi ñëpp dañ cee d'accord malheureusement il a été empêché et <laughs> baax na n'est-ce pas euh, moom la noo fàttaliku cent ans après waaw bëgg lool xam nga sax Cheikh Anta boo ko waxee Eh, xale yi mujj ñëw dañu yaakaar ne ca mag ñu njëkk ña la bokkoon ndekete bu ñu la waxee dañ la téeméeri la nga xam ne nit dund na téeméeri at 86 gi rek waaw waaw nit nit dund na téeméeri nga xam ne na nga ni naa fekk muy dund suñu biir ba noppi mhm. waaye léeg-léeg danañ fàttaliku nit aw askanam siggi yëkkati seen i mbagg waaye am na ñoo xam ne bu ñu leen di fàttaliku moom day danañ xam ne jàmbaar la waaye aw askanam dañoo war a rus mhm. ndax li ñu wax nii ci ko am ci xam am ko ci ay compétence adduna bi yëpp man cee jariñu mhm. léeg-léeg am yu leen empêché ba doxaluñu liñ bëggoon a doxal te mën ngaa doo ci génnee wàllu politique loolu mën nga koy jàngat ba tey gis nga yàlla mën naa defaat bu ñu toogaatee fii téeméeri at mën nañoo tegaat ku mel ne Ousmane Sonko mii ci taabal ji wala ñu teg beneen politicien bu dul moom koo xamante ne mën nañoo wax ne amoon nay xam-xam amoon nay compétence amoon na nangam ñu ne lan moo tax mënta jëmmal xam-xamam ba ñu ne parce que politique a taxoon booba askan wi am nañu fi nekk ñoo xam ne am nañ kàddu mënoon a wax ba loola am waxuñu ba loola am dañoo seetaan te ku seetaan da ngaa sot Cheikh Anta mii bi mu amoon ak li mu am bu fekkente ne Sénégal ab université la ñuy romb tur wa ñu bind ko ca kaw ñu mën ko koo fàttalikoo man a jàngaat histoire am tey waaye jëmmam nekku fi ba Maodo mii mënta solo daal am dem laaji ko ko wala ñu gis lam doon xalaat ci pensée moom ak ñoom Mamadou Dia ñu mën koo jëmbal bañ mën cee jariñoo mm. te loolu dara dara loolu amut mm. lu dul volonté politique rek mm. maanaam am am ay ay intérêt personnel yu tuuti moo tax ay leen bañ dugg ci biir suuf ñu leen di fàttaliku tey naan nangam nangam nangam te loolu xeweegul ba léegi Cheikh Anta 86 la nelaw la Maodo wax tey ñu ngi ci 2024 ba léegi volonté politique mi ngi gàllankoor ay boroomi xam-xam ci réew mi ñoo xam ne seen xam-xam mënta fee feeñ seenum njàng mënta feeñ seen seeni xalaat mënta feeñ mm. loolu ba kañ bu ñu fàttaliku Seex Anta nañu yóbbaale loolu jë am na solo jërëjëf Mbacke euh, Maodo oustaz yaa ngi gis euh, photo Seex Anta bi ma jox ah, soose il était ah, étudiant euh, photo bi daf ma neex nag fan dafa rafet macha allah il est africain quoi ah ouais ah ouais il est africain ku koy Seex Anta ah, ñu koy fàttaliku bés ni ki tey jëm fii ba la ba le 30 décembre euh, ñuy célébrer centenaire Cheikh mi nga xam ne Afrique dootu ko fàtte kon euh, Afrique euh, am na ay kàngam yu mu mën a fier ah donc Cheikh Anta Diop mhm. suma maam nga xam ne dootuñu ko mës a fàtte ñu ngay sant bu baax di gërëm temps bi passé na mhm. oustaz Maodo Serigne Mbacke si la sant leen gërëm leen dafa leen i ñeel Cheikh kii Ndoye bàyyil sa kii nu mu tuddati weey yi ngay kii nga filmel ma booy bi fële hmm? nee nañ leen bàyyi leen di lekk wéy. waaw di ko ngeen ak say bëñ. quand day tax a xoolal fële kii. <laughs> naa jaaxle booy lu nit waaw jaaxle jaaxle de moom mooy loolu kooku mooy Cheikh Oumar Ba. Ah, euh, nekk ci el bi Cheikh Omar filmeel ma foofu Ndoye nekk ci beneen el bi ku koy Ndoye ñu ngi leen di sant bu Ndoye noo tudd yow. Pape Ndoye voilà. ñu naan ko RD <laughs> RD ci réseaux sociaux yi tey booy eh, kii Cheikh Omar Bapoulo ñu ngi koy sant di ko gërëm oustaz gis nga de. booy ñoo ñu gunge at bi yëpp ci réseau ci plateforme digital bi. ah defal jàppale ñu ci vidéo yi eh, gis nga duñ la génnee ci image yi. nu muy naaysee nga xam ne xoolal. doo xam doo xam sax. lu ne la ñuy daj ci vidéo yi ah, ndax Maodo oustaz Maodo Faye. Eh, waaw mais yàlla baax na gis nga de image ñu lay génn di ngay seetaan vidéo yi ñuy def ci YouTube bi ndekki li. Ah, doo ko seetaan boo ko doon seetaan xam ne ñoom mën 2STV duñ seen morom. quand même. foo xam ne fii moom nag moom lu ma fi yàlla baax na loolu bokk ci. yàlla baax dama leen di sant bu baax di leen gërëm. parce que euh, muy Cheikh Omar muy Ndoye muy Socé ak équipe technique bi yëpp. Euh, puisque on finit l' ñun Ndekili on en a fini et on a fini Ndekili donc euh, c' très difficile de <laughs> travailler avec moi parce que je suis très exigeant et Mbacke xam na des fois damay ah ah. a gérer li ñuy gérer nicement c' est très difficile mais équipe bi saa su ne team bi ñu ngi ci ginnaaw bi jàpp voilà même quand c'est difficile même quand c'est compliqué ils sont quand même là ils soutiennent cela me fait plaisir aujourd'hui de leur rendre hommage vous équipe digitale Ndoye Cheikh Oumar euh, Socé merci et infiniment et merci de m'avoir supporté surtout avec euh, mes qualités et mes défauts n'est-ce pas maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bu rafet bi ñu ànd ci at bi yëpp di leen jaajëfal oustaz Maodo Faye dëgër et tout ça mais toujours est-il que ce que les gens ne comprennent pas c'est que Oustaz Maodo on s'adore voilà ah, eh, dañuy dañuy clashante dama koy kii dama koy topp mur bi ba mu sës ah di ko di ko yëngal gësam bu baax mais après euh, on se sait non dama daan def journal euh, nostalgie nga ñëw <laughs> nekk benn booy bu sob waaw ah, di dugg ci gaa yi dugg fii dem ci bureau yi xam nga léeg-léeg jékki-jékki rek gis ko mu taxaw ci téléphone <laughs> non mais yow dañoo yàgg quoi merci macha allah dama lay ah. sant sant bu amul àpp. parce que yow euh, bu weesoo euh, li ñuy nekkee da nga doon borom xol bu baax si la mooy def lu mu gis rek ci lu baax da la koy yéene day jékki-jékki ñëw rek fekk la nga toog rek mu fëgg la benn affaire ne la xool jëlal bul wax bul wax noppi noppi. Ah, noppi <laughs> da koo tànn rek. oustaz bàyyi loolu nag dafa baax rek nag oustaz. Euh, baax boobu nga baax yàlla na la suñu borom fay sa xol. Ah, di la sant bu baax di la gërëm man plaisir la woon bu baax ñu ànd ci ci ndekki li ak yow merci merci infiniment non cant gi yaa ko moom xam naa tey da waroon def émission spéciale rek ñu waxtaanee tàggatoo jeexal at <laughs> boobaa dinaa wax ci yow lu bari <laughs> parce que it nag yaa yaatal daal mënoon ngaa xëy si ci yor yor bi di teg say musique di animé di maye di ba dem jot nga dem di nga tàmbalee ànd ak Maodo it dafa neex auditeurs yi nga gis ne su ma ci ñëwee du ci yàq dara mm. nga yaatal ko loolu sa initiative bopp la boo xam ne yaa ko defal sa bopp ak bëgg a yaatal loolu su ma la ci santut mm. wax dëgg yàlla du ma gor te nag plateau ndikki euh, mu néew mu gàtt mm. apporté na lu baree baree baree bari ci sama nekk ci rajo bi na lu baree bari ci sama nekk ci média loolu maa la ciy sant di ci sant directeur mi nga xam ne moo la jox confiance liggéey bi ba loo aussi ci luy jëmale émission bi kanam mu ànd ceeg yow di wax ne lan ñu ak yow ca kanam a kanam incha allah léegi maanaam tàggatoo bi yëpp dee leeral nit ñi ne mhm. tàggatoo bi jeexal at mi rek la waaye fii toog ci digg bi nii sol sa koppati mi nii ne ci digg bi waaw waaw parce que parce xam nga loolu loolu wër ta a <laughs> <laughs> ko ni ko dana am tur wu ne di sant xale yi parce que li nga wax léegi mm-hmm. Maodo seetaanu vidéo bi mais ñun bu ñu koy seetaan mm-hmm. dañuy yëg ne def nañ ci liggéey bu rëy parce que léeg ñu jëlee la plan boo xam ne plan boo xam ne da xam ne def nañ ay effort ngir mu rafete noonu te nag ko jëlee woon neneen image yi ñaaw duggal YouTube rek nga xool vidéo yi fay jàll yëpp nga xool ñun bu ñu monté ba diffuser rek effort yi ñuy def ak peu de moyens Euh, soose nga baal ma xam naa publicité yi bëri nañu soxna Aïcha Kayré dana xëcc sumay nopp maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom it commercial euh, <laughs> Aïcha Kayré parce que liggéey nañ lu bëri ci at bi ci wàllu dugal xaalis koppar ci kër gi grâce à ndekki kon Aïcha madame Ba maa ngi lay ziar yàgg waa commercial bi nga jiite yëpp di leen ndokkale itam di ndokkale spécialement beral ko loxo suma directeur général monsieur Baye Mar Gueye qui m'a donné la chance et l'opportunité de m'exprimer à travers ce micro qui m'a laissé libre à moi de créer cette émission neewee Maodo dama ko ciy dugal Mbacke dama ko ciy dugal wala lii dama ko ciy boole mu ne ma defal defal ni ko sentiree parce que euh, jox naa la confiance boobu. Mm-hmm. kon monsieur le directeur général aw sa fay yow itam monsieur Baye Oumar ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci opportunité bi nga ñu may ñu mën a exprimer suñu talent express yourself loolu la ñu wax n'est-ce pas. Mm-hmm. kon jaa jaajëfati am na solo bu baax a baax merci à tous infiniment li ci des dañ koy denc rek xam naa joxante dig ba jëmmi jamono n'est-ce pas. Mbacke euh, jërëjëf Maodo jërëjëf. merci digital merci merci aux nombreux sponsors et merci à vous d'avoir été euh, aussi nombreux comme tous les matins à nous suivre. C'était Ndeki li émission Nandite l'émission numéro 1 de Sud FM Radio qui vous retrouve certainement prochainement. D'ici là, visez la lune. Salut à tous et à bientôt.